vamos a escapar again Dana khanyai parela Gorak tigen magat na Aulen mugaw joglen tahaw Wajama escapar again Dana khanyai parela Gorak tigen magat na Aulen mugaw joglen tahaw Aminata ak Aïda mun doom takk ga ñu ngi fii Bada Diouf ànd ak Tàndaxa waa Jañal de ñu ngi fii Mouhamadine ànd ak Tàndaxa ñu ngi Yàlla Anna Khanyai xamkat bee kaykat seeni xam-xam ca sunu gox bee suqaleeku ca kanam jaayul ngorom fàtte broomu ca kanam na boppam am na xam-xam ca kanam papa xarit Moustapha Ndour ca kanam jàmmane nañ yàlla nga nguur ca kanam waa jàmm est Assalamu alaikum wa asalaamualeykum Assalamu alaikum Jamono no ngi nuyu ñëpp ku Tour nek sa tour ak sa toute la population de la commune de jamo li ka si juróomi gox yi fasantikoo yi li ko de Debiti Guet Bundung Tàkk bayalar.

si juróomi gox yi fasantikoo koy ndax vraiment li nga xamanteni ni la très grande coalition gëm sa bop mu le candidat Papa Tandakha Ndiaye ñu très souvent l'homme de la situation l'homme du développement l'homme des grands projets l'homme qui a changé qui a révolutionné la sphère politique de la commune de Diamond li tax ñu am sañ sañ wax lolu ndax depuis 26 ans nous ngi fi am ben

mu fait une politique de contribution une opposition de proposition c'est pour cela qu'il a proposé un programme bien défini mu que le programme Natangé. mu nekk juróomi clé maanaam les cinq clés pour une commune prospère Jérôme Tchabi, yi nga de ni day pour buntu Natangé. li ma gën a neex ci mbir yi mooy juróomi caabi dañ ko

Des changements, buñ koy def dañ koy tàmbalee ci ay idéologie dañ koy tàmbalee ci ay principe ci ay gëm-gëm comme ñi muy wuyoo la grande coalition gëm sa bopp euh, baxda aouzu billahi min asheytan rajim Wa wasalaamu ala rasulillah amana billahi wa bi rasulihi mbokki njaay ngent maa ngi nuyu comme Diama ci gox yu fasantikoo yi di beral loxo takk gagne di beral loxo di tambali nuyo bi imam chef du village di ko tek ci loxo notable yi ma fekk suma ma si suñu Badara limna di rafetlu prestation wu ak groupe yep rek di la jeunesse jeunesse bi su ma limee ku ci mel ne Adja Ndeye Mbaye yaakaar naa dina man jottali jigéen ñëpp su ma limee également si maire yi Badiane Ndeye Mbaye dina man jottali nuyoo bi képp ku fi mag su ma limee euh, Abdou Diop lim Val Vieux lim euh, El Hadj yaakaar naa ne. su ma sen tegee seen loxo dinañ ko teg loxo njaay mat ma am nag mbégte ak vraiment fierté ànd ak délégation bima andal àndal waa yàlla bokk ci waa takkgañ bokk ci waa débiti gét bokk ci mais ñu fokk ci suñu mbokk waa njaay ñu taxaw xaar lu mu yàgg-yàgg ñu pour mën pour également man xam candidat bi lan la indi lii pré campagne la woon du woon meetingu campagne yaakaar naa nag cin moom su naree neex su baxee xeeñ parce que mbooloo mi fi teew góor mi ngi fi jigéen mi ngi fi mag mi ngi fi ndaw mi ngi fi donc mbooloo mi complet na li may sant yàlla nag mooy Njaay mooy village bi gën a rëy ci Dàkk Gagne ci wàllu électorat

su mënee moo fi toog su tëlee moo fi toog askan wi nañu xam ne képp ku fi mos nekk maire ñoom ñoo ko fal ñu ngi jooy suñuy rangooñ booboog léegi mais rangooñ yi lu si ëpp ñu ñoo ko teg suñu bopp ren li am mosul am commune jama ren raw gàddu la maanaam ku ëppalee benn benn carte dangay nekk maire mooy benn ñaareel bi ren li am commune Diama mosul am ndox mosuñu am ay candidat wu ndaw ndaw nag ak xale yamuñu ñun ay ndaw lañu yi nga xamante ni wër nañu àdduna suñu entreprise ñu ngi liggéey partout en Afrique alhamdulilahi rabbil alamin ñu mënal suñu bopp astuut xam àdduna fu mu toll léegi ak fi nu jëm jotaay bi li muy yaatu yaatu liy daw sama yaram mooy xale yii nekk suñu biir Sou nou sa gane, ban lifine, nou kontinye ko, filek 5 an, dou yaye nyo yoye, men nyom nyo yoye, se lè avenir ki anje. Sou nou sou yi sokne son nou nan yo. Sou nou yi digen son nou nan yo. Sou nou yaye sen yoye, sen rangoye, ken moun tou ka ferel. Lolo lèl nou dongu mou ka fi yi djelè, mou yi gen tek fi ayin da ou yu set locho, nou nye ou djapalante la me, da la me, ligye sou nou komine, ken douni ko ligye yel. njaay ni mu toll si dayo ba léegi pour ñu am poste de santé sax ay doomam ñoo tuddee seen organisation Setoran di góor góorlu di boole seen fukk ak seen ñaar fukk ba poser première pierre te bi ñu ko posé fa mu yemoon fala la yem ba léegi yaakaar naa ni loolu firnde la que ni avancé wuñu njaay ni mu toll si dayoo ba léegi ku fi am entrée en da ngay am njàqare parce que xamoo fooy jànge loolu yaakaar naa ni njumte la Ndiaye ni mu toll si dayoo ba léegi ñuy wax transport élève ta ngeen war man am lycée war man am collège man yaakaar naa ni vraiment seen cër kenn joxu leen ko mbéjum kanam nag kenn du ko fajal kudul kin ko mbéj seeni carte mooy seen doole yéen amul leen ni njëkk yéen mat mag yéen a mag milliard yéen a mag million waxuma leen ak dix mille ak cinq mille xool leen gis-gis yi ku fi ñëw na leen wax lan mooy programme am lan mooy gis-gisam ci yéen commune bii ki koy liggéey day taraxlaayu jël kaala def ko ci ndigam jàmmarloog lépp li nga xamante ni ngëneel la wuti ko ñëw sotti ko ñëpp bokk ko commune bi tuutiwul xam-xam bu set wecc moo ko mën jële fi mu ne pour jëmale ko kanam sant yàlla weesuwul ndaw ñi nga xamante ni njaay soxal na leen ba ñu teg association ñu bëri ñu ngi suñu biir loolu firnde la que ni suñu gis-gis ak seen gis-gis benn la bi ma fii mujj yi dama ñëwoon secteur environnement pourtant li ñu doon liggéey commune moo ko war liggéey mais ñoom ñu tax laayu liggéey ak seen bopp gàccee ngalaama jeunesse Njaay gàccee ngalaama jigéenu Njaay yéen ay barigo ci mbastal ngeen puus dem ñàkk puus dem mais puus dina tax ngeen gën a gaaw si yoon ngeen tegu képp ku am oto bu set wecc war na leen man jël teg leen ci biir ànd ak yenn jëm kanam man yaakaar naa ne su ma faloo fàtte njaay waxuma sax duma góor mais suma sant la war changé suñ nee tàndax luñ ciy teg mais benn candidat moo fi sant njaay affaire bi njaay la de <laughs> fête bi njaay la xoolal guddi guddi njaay guddi guddi tàndaxa njaay ñu changé commune bi njaay point jox leen seen cër parce que takk gañ bokk na ci rangooñ yi mooy xëy na sore bi commune bi sore gox goxaat yi war nañ mën am ay annex ba su ngeen amee soxla ngeen dem fa annexe war naa mën am fii si njaay wala beneen dëkk bu ñu choisir bu ñu waxtaanee su ngeen amee yenn soxlay këyit soxlawul ngeen di ñëw ba jama man ngeen taxaw foofu ñu réglé ko. léegi àdduna fu mu toll da ngeen toog tey seen portable di nekk Dakar war nañ mën a am ay annexe liggéey ensemble donc programme bi yaatu na dinañ def présentation bi mais daal li ma leen di wax mooy ku fi ñëwati joxe xaalis ñi mën lekk nañu lekk mais na ngeen xool ku leen xel. ak xalaat ndax xel ak xalaat moo nuy jëmale kanam sant naa leen gërëm naa leen dinañ fi ñëwaat ñëw bu gën yaatu ñu ngi nuyu vraiment waa Ndiaye ñëpp amuñu seen fay nday mbay ñu koy wax gàcce ngalaama ak ñi mu àndal ñëpp rek di gërëm également suñu kilifa yi doon def théâtre bi ñu ngi wane ni talent yi ba léegi ñu ngi ci bile commune yooyu ay mbir la yu ñu war a ñu jaay ko parce que mooy suñu doole wàllu dafa am histoire boobu la histoire théâtre si la bokk tama bi doon def si il faut ñu fessel ko rappeur yi également gatché ngalama ñom message bi jall na nouveau talent yi vraiment wane ngeen ni bëgg ngeen wane ngeen ni yéen ngi xex si ni ngeen mëne ñu doli dolel len parce que bile commune tubaab du ñëw changer ko chinois du ñëw changer ko foncier bi également suuf si nan ko delloo ñi ko ñun suñu askan mi ngi yokku te souf du yokku ñi joxe souf nañu bayyi xel suñu tuutànk yi ëlëk fuñu jëm ñin koy jox ñu ñu ñin koy jox ëppale wuñu dañu leen di jox suuf ñu dem dëgmal banque ñu jox leen financement pourquoi pas ñu jox suñu doom nañu delloo buum sa mboy mboy ga ku ne li mu moom ñu jox ko commune Diama jëm sa kanam gëm sa bopp dugg ku nekk si ñun vraiment ñu jàppalante la main dans la main li fi ne ñu jëlee def li gën maa ngi leen di nuyu di leen ziyaat leen jox seen wàccuwaay